là c'était préparé parce que xam naa loolu xam naa journaliste la mais c'était c'était préparé pour ñëw tontu si quoi mais man daf ma daf ma surprendre parce que xalaatuma woon ne peut-être parce que doonu ma koon suivre moo tax aw moon benn benn benn idée bi par rapport à ses sorties et ses communications mais bi ma ko déggee mu wax ba noppi ak émission bi ni ma ko doxalee mhm. euh, si laa xam ne communication la doon def si quoi en fait dafa jógoon pour def si communication vraiment réussir na ko parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne contrôle nañ ko après dañoo mujjee ci émission boobu mhm. nga gis gars yi ñu commencé naan ah, xamuñu woon ne ndekete Aliou nii la mel donc loolu je pense que bokk na li nga xam li ma marqué moom moo marqué ñu bëree bëri. mooy te ñu ngi toog mel ni ku nekk ci final coupe d'Afrique. di ko waaj a di xaar ñu ne Sénégal mu ngi préparer pour dem ci terrain bi yàlla defal ko ndam. Mm-hmm. mu gagné coupe bi indi ko. Mm-hmm. loolu li muy tekki mooy. Mm-hmm. Eh, tey son excellence muy le président Diomaye. woo gi mu woo presse bi. Mm-hmm. nara waxtaan ak àdduna yëpp. Mm-hmm. ñu gën ca ràññeetle. Mm-hmm. senegal gi mu nar a. ci maanaam téeméeri fan yi nga xamante ni. jot na fee jaar ci diggante bi ko li ëpp ci ñiy wote. waxee ni doxalal ñu njiit réew mi. loolu vraiment tey jii na ma trop. moo la marqué daal. moo ma gën a marqué tey. maa ngi koy xaar impatient. d' accord nuyu suma frère. Mhm. sëñ bu mag bi. d' accord ay Cheikh Ahmad Bamba moom le temps muy kii sax xaaral ma jël dernier dernier euh, internaute. Euh, jërëjëf euh, moom mu installé wu ñu continuer salaamaaleykum. waaleykum salaam. nuyu naa leen ba yaa ngi ci jàmm yaay booy. naka coono yi. sa saa wolof imaam Khalifa Moustapha ak Serigne Khadim. waaw sëñ Khadim sama sang bi imaam moom sama imaam la moom dama koy topp yàgg na. ah imaam bëgg ceeb nag loolu rek ko yàq di dégg. <laughs> waaye gis nga imaam koy topp. Hmm. muy wax. ndeysaan ah nga gis ci dëkk dal yàlla xam na ko. Mm-hmm. mu muy wax yu am solo si Khalifa Sall taxaw taxawaay bu am solo macha allah. <laughs> merci merci. yàgg na yàgg na xeex nooteel. Mm-hmm. Ah. ah c'est vrai. Mm-hmm. moo tax bi mu jagee kooku man jaaxaloon na ma trop kooku may bañ a tudd war a boobu bi ñu ko jagee noonu dama naan kii lii rek mooy catam jagee mu jagee kii <laughs> dëgg yàlla da mhm. jàmm bëgg seen bopp bëgg seen réew. Mhm. may Ousmane Sonko jàmm. 2000 mhm. léegi benn wax ji ibbi seen gimiñ ji teg ko doomi jàmbur ji su añee. Ah, réseau baa ngi dem de réseau baa ngi dem de. ndax mu ngi doon wax la waa ayca. yéen yéen ñii soo ko dee xool parce yàgg da ngay am jom nit ki da bëgg sa réew nit ki bëgg jàmm nit ki da ngay bëgg sa réew bëgg jàmm Ousmane Sonko képp ku ko bañ bëggoo sa réew. Mhm. ba am sañ faa. Mhm. ko bësal. d'accord ku may jàmm xoolal kenn du ko tudd Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko. dangay xool nit ñi ba si yàgg sax ñu ne est-ce que ñii bopp yi ñu ngi si kaw. Mhm. seen tànk yi nekk si suuf. yàlla mhm. xam na seen seen bopp yi nekk si suuf seen tànk. Mhm. nag day doomi jàmm di jàmm may ko salaam. ñu am jàmm féexal seen xol yi. ah su si bëgg a. jàmm may doomi jàmbur di kii <laughs> ko may lim ko may yàlla moo ko see dara. <laughs> <laughs> d'accord. bàyyi. jërëjëf jërëjëf yaay booy. kontaan nañu bu baax a baax ci sa participation à l'émission yaa nekkoon internaute bu mujj buy dugg ci wax gannaaw bu ñu tàmbalee waxtaan bi di la nuyu di nuyu képp ku nuy ku nuy seetaan itam euh, moom euh, Mère Dieng di ko jaajëfal bu baax a baax. moom ak euh, tout tànkam di soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi ñuy woowe depuis États-Unis d'Amérique ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sëriñ Ahmadou euh, sëriñ Ahmadou maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ba am nga jàmm sant naa bu baax kay. bisimilah dalal jàmm sant bu baax ci euh, invitation bi <coughs> di nuyu mboolam seen téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi fi di seetaan set ci Sénégal set di nuyu nag sumay maam. moom suma soppee la ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko sant aussi ci taxawaay bu am solo bi di nuyu aussi saawolof moom it daa bokk ci suma soppee yi nga xam ne waaw saa su ne dal leen ni déglu di jël suñu bigg ak suñu fëy di noté li ñuy wax waaw ndax li muy am solo di nuyu aussi Moustapha moom it di euh, borom xam-xam waaw moom moom c'est c'est un grand analyste d'ailleurs boo xam ne chaque fois dañ koy suivre ci sur sa pertinence ah non non c'est. Euh, di <laughs> voilà di la nuy aussi xaw ma jibi ou bien Joni. wala <laughs> donc maa ngi lay nuyu di la siyaare di euh, am mbégte kontaan. non boobu kot la. <laughs> Ah, voilà eh, eh, eh, voilà donc euh, merci beaucoup di bég euh, bu baax ci ci invitation bi. jërëjëf merci mm. ah, jërëjëf ñuy ànd ak moom tey ci waxtaan wi ah, moom Saa Wolof Imaam xalifa Ababacar Ndiaye ak ki nga xam te ne nii moom mooy suma xarit di Moustapha mbay ma doore kook moom sax ci taskatu xibaar bi Moustapha Mbaye Ismaïla Cissé Bon ak mustafa ma tàmbali kook moom waxtaan bi tey ji ginnaaw géewal moom ñu wàcce ko seen rendez-vous incontournable. table la ah, ngir ngir faire plaisir aux aux internautes aux téléspectateurs ak ñi ñuy liker ñoom ñëpp ah moo tax tey ji ñu wàccal leen ko ngir defal leen avant ah, premier ci waxtaan wi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fas yéene daal di séq ak ñenn ñi suñu ay mbokk taskatu xibaar alors la ko waral lépp mooy 100 jours yi. Mm-hmm. Moustapha Mbaye laaj bu gàtt la ndax mooy nekk wërngël bi ngir ñu fas yéene ci waxtaan nu mu gën a yaatoo. Mm-hmm. cent jours le président Bassirou Diomaye Faye def ci boppu Sénégal yow en tant que journaliste en tant que kuy gëstu boo doon euh, jàngat cent jours yi lan lay nekk Moustapha Mbaye waaw 100 jours xam nga d'abord pour ñu ne wax bilan ci 100 jours je pense que dafay dafay teel trop loolu ñëpp d'accord nañ ci 100 mhm. jours mënu cee am. parce que su mhm. fekkente ne da nga da nga def calcul bi nga def ku ñu fal ci 5 ans. Mhm. nga bëgg 100 jours nga wax ci bilan dafay dafay teel trop. maintenant li nga xamante ne moom lañ ciy xool ak li ci def mooy ay observation lañ ciy nga xamante ne. moom la doog a jox réew mi. maintenant toujours ñu rappeler nag ne c' tradition américaine. Euh, mi ngi doore am jëm depuis euh, Franklin Roosevelt. Euh, mu ñëw jël réew mi. commencé euh, doore ko ci tombel benn crise bu metti bu fa amoon mooy mhm. crise des années 1929 mhm. mu am ay jéego yu jéego yu mhm. bëri yu am solo yu mu def léegi mu ñu bëri nag daal di ci commencé bàyyi xel léegi ñu ne déjà 100 jours rek président bi réalisé na lii yëpp donc te te 100 jours rek la fi def léegi bi 100 jours ñëw dafa marqué américain yi ñu jàpp ko nag léegi président bu ñëw boo defee 100 jours ñu lan nga def te ba léegi ñoom ñiy xayma sax dañ naan amagul ku def lu résultat def si 100 jours tellement que mesure yu mu jël ak taxawaay bi nga xamante ne am na ko. Mhm. tradition boobu nag moo rogalaat ba dëkk yu bëri daal di koy def léegi tradition boo defee 100 jours ñu commencé ne la lan ngay teg suñu ay loxo mais am na dëkk yoo xamante ne sax daanaka du ñu xool 100 jours parce que dañuy jàpp ne du du du lu am solo maintenant fii Sénégal nag doon na loo xamante ne léegi. tàmmal nañ ko réew mi ñëpp xam nañ ko min nañ ko parce que lii président ba Bassirou Diomaye fay di def ci kanam président Macky Sall defoon na ko fi bi muy doog ñëw di matal ay 100 jours am defoon na ko fi eh, invité ay journalistes daal di wax kon c'est devenu une tradition léegi bu ñu ci yegsee président bi daal di toog wax ak nañ yan mesure la jël kon dañuy d'accord ci benn point kenn mënu cee def bilan waaye beneen mbir mi mën nañ ci def observation par rapport à l'orientation du pouvoir en place mmh. pouvoir remplacer ban orientation la jël. man dama yàgg wax ne toujours mi ngi mel ni nit ki nga xamante ne da ko jël rek nga dugal ko ci benn nekk ci gaaw gaaw ci kër goo xam ne dafa tasaaroo jaxasoo bu duggee am na fu xelam di njëkk dem soit bu doonee classe imam bi. amaana bu njëkk seet li ñu njëkk seet mooy si sijaada am na ci kër gi mhm. waaw sijaada am na ci kër gi wala am na koo xamante ne bu doonee classe imam Dramé wala ñoom saaw dañuy dem jubali ci ba xool ndax lekk am na fii fan lañ fi ñuy toggee am na ak yu premier pas yi premier jéego yu ñu si kër di nga am idée ki par rapport fan la jëmee kër gi ak ban xalaat la ci am. perception boobu la nit ñi di am ci 100 jours léegi nag bi ñu ñëwee ñoom euh, ñu gis ne euh, am na ay jéego yoo xam ne ñu ko doon teg mais dafay euh, am dafay baax tamit ñu xool lan lañ fi fekk parce que dañu ñëw ci benn situation bu compliquée. fekk situation bu compliqué war a jooyanti war a doxal wara a jubal war a jub wala jubbanti mm-hmm. donc loolu lépp ñu war koo def mais li ñu gën a observé man dama ne 100 jours li ci gën a fës. li ñu njëkk jàpp jàpp li ci gën a fës ñaar la. ban ak ban mooy justice bi ak mesure sociale yi ñu jël. Mhm. ndax dama ne ñaar yooyu te boo xoolee ba ci biir mën naa juum de mais boo moytu seen euh, seen régime dina bokk ci ku gën a marqué. Mhm. mooy yoon ak nekkinu askan wi. Mhm. yoon parce que ñoom dañoo nekkoon victime ci yoon. boo xoolee assise bi njëkk a def fii am na pourtant am secteur yu sooxe yu bëri yoon la. Mm-hmm. réforme yi njëkk a proposé yoon la. Mm-hmm. biñ ñëwee rapport yi njëkk a laaj dafa am rapport tamit ak yoon. donc loolu lépp boo xoolee da gis ne yoon dañ ko téye nii ak seen loxo. parce que mm-hmm. dañu dund loo xam ne ci yoon ñaanuñu beneen doomu réew mi dundaat ko ci yoon. tout à fait beneen mbir bi sénégalais dañoo sonn dañu fatigué. dund bi cher na lépp metti na affaire yi tar na njëkk yi kawe nañ. commencé nañ ci jël ay mesures ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy leen ci féliciter di leen ci encourager di am yaakaar dina jëm kanam mais man dama jàpp ne social bi ak justice bi bokk na si xam ne marqué na ci ñaari six cent jour yi c'est important jërëjëf ah, Moustapha Mbaye doon analyser cent jours yi maa ngi ñëwaat ba tey ñu yeggali ci cent jours yi ba tey ndaxte loolu mooy débat bi euh, fii ak vingt et une heures di jot incha allah Imam Khalifa euh, loo jàpp ci cent jours li naan njàmbaas du yàq seen saa wolof bu fekkee ni. bu dul yëbbu bu dul yëbbu du loolu loolu wax. waaw ah. waaw jours yi téeméeri fan la ñu wax. Mhm. E, li tax ñu tàmm wala ñuy wax moo cent jours Moustapha dikkal na leen ci waaye man jàpp naa ni cent jours la yoo xamante ni e, jubbanti na ñaar la fait que jubbanti na ñaar rek mhm. le reste. yaakaar naa ne dana tegu ci yoon. Mhm. dana te boobu feeñagul. Mhm. parce que il faut président wax ci. te su ma juumul Bamba dana ci ñëw sax. incha allah incha allah mooy suñu wàllu économie. Mhm. parce que Moussa.